li ñepp doon xaar yegsi muy Arafat info taxaw temm ngir jotali mbollem xibaar ak xam-xam yu aju ci kër cheikh elassi Omar Dramé ngir jot mbollem luy jaar ci gile kër aboneel ci tel ci compte YouTube bile Arafat info suñu nituwaay. mbokku juli yi rawatina mbokku taalibe yi. yéen ñuy bàyyi xel Arafat info ñu ngi ci àllarba 19 février 2020 ci dëkk bu tedd bi di Arafat mu mel li ñuy gis mooy ñëwu autorité yi nga xamante ni la nekk ci département bu Koungheul jiite ko préfet monsieur le préfet département du Koungheul nekk noonu sous-préfet de Missirah Wadène ak euh, monsieur le maire de la commune waaye itam chef de service yi nga xamante ñoo nekk ci département bi yépp bu ngeen teewaay bi nag xam ne li ko waral du lenn waaye daf di préparation bés bu am solo ci umma bi am solo it lool ci département bi waaye itam ci région bi rawatina commune bi muy ziar annuel bu Arafat ñu jàpp ko ni samedi 28 mars waral bis na tey CLD préfet sous-préfet ak euh, toutes service dajee ci dëkk bu tëdd bi safonte ak sëriñ bi nuyu ko waaye teew ci dëkk bi ngir amal fi ne xamante ni moo di waxtaan ñu di CLD waajal ziar annuel bu Arafat édition 2020 ci fàttali ñu dooroon ci atum 1966 El Hadj Omar Dramé ca màndu ga ca sell ga waaye itam benn woon lool ak i taalibeem taxoon ba taalibe yi sàkku ci moom ak tofal gu ñu amoon ci moom ngir rek mu may leen bis boo xam ne daañu man di ko dajee si ci wetam feddliwaat seen buumuk taalibe feddli kooku mooy préfet département bi Koungheul fego ak monsieur sous préfet ak euh, service d'hygiène monsieur la moom itam ci place bi naka noonu monsieur le maire de la commune de Makayopp ak euh, docteur Diallo di bàyyi xel itam ba léegi Mamgour Sow naka noonu monsieur le maire bi si si Lukaar te woon macha allah te jotaay bi naka noonu tam délégation bi nga xamante ni le comité bi teewaloon comité d' organisation jiite woon ko ki jiite comité d' organisation bi laa si Ali Niang Serigne Makhtar Abdou di eh, njaboot ci kër gi. macha allah yëkkati fa moom itam ay kàddu yu ama ama ama am solo mbooloo mu bari teewe woon ko suñu bàyyi bàyyi góor a daabo mbokk allah ci taalibe yi kër gi yi ñu ràññee lool macha allah ci taxawaay macha allah eh, mu mel ni taalibe yooyu di taalibe El Omar Dramé sàkku woon ci moom ngir. am ak bis boo xam ne dana leen ko may ñu mën di ko dajee ci arafa ngir beesalaat seen buumu taalibe ci seen kër sëriñ El Omar lu ko jiitu ziar yi daan bari lool waaye daaw doon nekk benn euh, macha allah ginnaaw loolu nag delloo nañ ci kër sëriñ bi ngir. mu ñaanal ñi nga ni ñoo di autorité waaye itam ñaanal umma bi ñaanal itam comité d'organisation bi ngir ñu am réussite totale ci ziar bi nga xamante ni ñu ko waxee ñu ko jàpp ci 28 mars incha allah 2020 ñaanal ko rek moom xalif bi it suñu borom ko fi ñu yàgg fi lool te ànd ak wér Cheikh Ahmed Tidiane Dramé eh, la ñu muy ñaan. mën a tàggatoo yi nga ni defoon nañu déplacement taw ci dëkk bu tedd bi la woon ak fukki ak juróom ñeent ci weeru février atum euh, ngeen nekk doon am CLD bi nga xamante ni doon nañ amal ci dëkk bu tedd bi di di Arafat mu jëm rek ci wàccaayu ziar bi nga xamante ni ñu ngi ko jàpp ren ci 28 mars incha allah nees ko euh, tënkee léegi rek ci jotaay bi depuis 1966 ba léegi Arafat di amal ziar waaye itam ñu seetlu si yokkute gu am solo jóge ci autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi ngir ñëw di amal GLD ci dëkk bu tedd bi la gannaaw bu ñu dégloo li nga xamante ni chef de service yi nga xamante ni ñoo nekk ci département bi jël nañ ko ni engagement euh, El Hadj Ali Niang la ñu taxawal mu war ñu mën a defal euh, kàddu yi euh, yoo xamante ni yëg-yëg la boo xam ne am na ko ginnaaw GLD bi nga xam ne def nañ ko fii ci Arafa fekk si leen ci seen dëkk. waaw salaamaaleykum man ñu ngi lay sant di la gërëm comme ni ma ko waxee rek CRD bi CRD bi lu am solo la ndax kilifa gi ma nekkee ci tool bi ne préfet département la Koungheul préfet Ndiaye moom si sir chef service yi si département Koungheul yëpp ñu ànd ak ñoom ñu fekk ñu waxtaane waajal ziyaare Arafat pour deux mille fii ci Arafat ñu ko fekk jàmm tombé le vingt huit mars deux allah taala mars incha allah xam naa dañoo yàkkamti moo tax ba du ñu mën a guddal kàddu yi monsieur le ginnaaw euh, jotaay bi ni mu tëddee euh, du ñàkk soññ boo xam ne di nga ko soññi euh, ñi nga xam ne ñoo di chef de service yi waaye itam délégation yi ñi nga xam ne ñoo yor ziar bi. waaw maa ngi gërëm di sant di wax rek comme ni ko président comité d'organisation waxee euh, chaque année dañuy ñëw def fi CDD mm-hmm. pour euh, préparer ziara bi nga xam ne ziara bu importance la mag la mm-hmm. moo tax ñu déplacé ba fii ñëw def fii te réunion bi comme yow fekk nga ko gis nga ni wax dëgg yàlla liñ fi dégg euh, dal na xel ndaxte chef de service su nekk jël nga kàddu jël nga engagement yoo xam ni euh, di nga ko respecté parce que ñun li ñu seetlu mooy bu ñu fi nekkee ba léegi man de gisuma ñu jël engagement te respecté wuñ ko waaye seen bopp wax nañ ni engagement bi chef de service jël respecté nañ ko que ni incha allah. balaa le vingt-sept dina jaar yoon incha allah. ñu sant la gërëm la monsieur maire euh, honorable Moustapha Ndom lu ne mel ñu amalee ko ci sa biir commune ñàkkul yëg-yëg boo xam ne amul ko. waaw ah, am kontaan ñu sant ñëpp préfet moom mooy suñu kilifa daanaka moom mu waxee rek ñu. la nañ ko doon defee allah bonne continuation merci. Euh, kon ginnaaw kàddu yooyu nga xam ne dégg nañu ko ci monsieur euh, préfet dégg na ko itam ci El Hadj Ali Niang nekk nañu monsieur Moustapha Ndong maire de la commune mu doonoon rek. CRD bi ñu doon amal fii ci àllarba tolloo rek 19 ngir wàccaayu ziar annuel Barafa bi ñu jàpp ci samedi 28 mars 2020 xanaa rek euh, euh, ñaanal ñëpp ñu fekkee ko ci jàmm incha allahu taala waaye itam Arafat info fas yéene ànd ak yéen ci préparation bi ba ca bis ba ak équipe bu am solo bi nga xamante ni euh, taxawal nañu ko incha allahu taala sàkku ci ñëpp ñu bàyyi xel rawatina abonné ci gile kër ndax kat mooy suñu niituwaay. li ñépp doon xaar yegsi ne muy Arafat info taxaw temm ngir jottali mboolem xibaar ak i xam-xam yu aju ci kër Seex El Hadji Omar Dramé ngir jot mboolem luy jaar ci gile kër aboneel ci teel ci compte YouTube bile Arafat info suñu nituwaay.